di fay. alors euh, weesu euh, dañu defoon waxtaan euh, woo xam ne mi ngi jëm ci épidémie yi Sénégal jot a xam sekkoon ko ak benn magu lébu boo xam ni am na yu mu fekkee am na itam yu mu wuute ñu bëggoon a mottali waxtaan woowu tax tey ñu dalal la ndax liggéey nga ci épidémie yooyu notamment pest bi nga xam ni sonaloon na loolu Sénégal ci ay jamono alors professeur ñu tàmbali ak Sénégal ñaata épidémie la jot a dund bi mu moomee boppam ak sax bi nga xamee ni xëy na tubaab yi ñoo ngi fi muy colon yi. alors balaa may tàmbali euh, déjà maa ngi leen di jaajëfal ba pare di ñaanal euh, waa réew mi ñaanal waa Sénégal ñaanal adduna euh, bi yëpp jàngoro bi am yàlla ko ci kaw jàmm. te ñu xam ni li xew tey du du guléet hmm. aussi du li nga xam ni docteur ya dong moo ko war a xeex ñun ñëpp ñoo ko war xeex. Hmm. alors pour euh, ñëwaat ci laaj bi ma laaj mooy euh, ñaata euh, jàngoro moo épidémie ñoo am ci ñoo am ci réew Sénégal mm-hmm. maanaam bi tubaab yi commencé ñëw Sénégal xaaju dix-neuvième siècle déjà boobu jàngoro yu bëree bëre bëre bëre ay épidémie yu bëre amoon na Sénégal mm-hmm. entre mille huit cent cinquante déjà ba mille am na ñu ëpp fukk ak juróom épidémie maanaam peste tuberculose maanaam euh, fièvre jaune maanaam euh, variole euh, yooyu ay xeetu feebar yu bëre yu yu bees ak yi xam ne yu yàggalo ñoo dikkaat am ay faat ay nit yu bëree bëree bëri d'accord alors lu mel ni épidémie euh, fièvre jaune bi nga xam ne 1816 bi tubaab yi doog jëlaat euh, Sénégal ci loxo anglais yi la amoon euh, boobu épidémie ban jàngat lañu ci mën a def. alors maanaam pour simplifier kii bi nga xam ne fièvre jaune moo gënoon a sonal tubaab yi te fièvre jaune vaccin bi bi ñuy ko ñu ngi ko inventé Dakar Sénégal lañ ko defaree vaccin bi nga xam ni. moom la ñu xeexee jàngoro boobu euh, moom la ñu xeexee jàngoro boobu Afrique occidentale française mm. Sénégal lañ ko defaree mm. euh, tubaab yu bëree en mille huit cent seize comme ni nga ko waxee ni bi ñuy daal di jëlaat euh, Sénégal déjà ñoom dañu am fièvre jaune te fièvre jaune yu bëree Gorée la doon tàmbali. Mm. lu tax Gorée parce que Gorée moo nekkoon buntu bi nga xam ne ñu doon duggee ñu doon duggee Afrique am na benn épidémie du fièvre jaune nga ñaar fukk ak ñaar docteur yu nekkoon Sénégal daanaka ñaar fukk yëpp dañoo faatu ci ci fièvre jaune boobu. mu nekkoon ay tubaab. yëpp mu nekkoon ay tubaab parce que euh, ñoom dañuy yaakaaroon ni euh, que fièvre jaune moom du dal nit ku ñuul te am na ay gëstu yu bëre ñuy def euh, finalement dañu xam ni dégg-dégg fièvre jaune day dal nit ku ñuul ba léegi sax bu ñuy waxtaan dañuy naan. Euh, fièvre jaune maanaam payis du dal euh, du du du feebaru tubaab ñun ñun dañ koy fajee sunu sunu faju bopp mhm. mais nag boobu ma bëgg leen xamal ni boobu loolu du fièvre jaune loolu euh, benn jaunisse la nga xam ni feebar bu bu bu bu feebar ni baraawewul comme fièvre te fièvre jaune tamit ba léegi amuñu garabam garab bu am ci fièvre jaune mooy vaccin bu la xasee ba dal moom euh, musiba naaru laay bu rëy la comme feebar bi nga xam ni am na léegi situation bi ñu nekk. Mm-hmm. muy coronavirus. alors jamono boobu muy coronavirus. waaw nga ne Lat Joor bu ko xamoon wala xëy na bu ko neexoon doon na dem jëli ndar ndax tubaab yi sonnoon nañu fa lool. waaw boobu mooy euh, épidémie fièvre jaune bu mille huit cent soixante dix huit ba mille huit cent boobu demoon nañu tubaab yi ak soldaar yi ngi doon dee nga xam ni ndar euh, ndar yëpp. Euh, juróom fukki soldaar moo fa desoon hmm. information boobu comme ni ñuy naan information mooy neeru guerre bu ko Lat Joor amoon munoon na euh, nangu ndakaaru euh, mën na nangu Saint-Louis ci ci tubaab yi. d'accord avant ñuy am indépendance aussi euh, Sénégal dundoon na épidémie choléra bu metti ndax mun nga ñu ñëwal ci euh, jamono jooju. alors moom boobu 1868 la woon boobu mi ngi choléra bi bu duggee Sénégal mooy pour la première fois choléra di dugg Sénégal daanaka ci yenn gox yi ay Podor ay Joal xaaju population bi yëpp dañoo faatu ci dañoo faatu ci ci épidémie boobu mhm. euh, te lu lu yéeme ci ci boobu mooy boo demee comme bërëbu Joal boobu évangélisation bi dafa yokk mhm. euh, maanaam euh, séeréer yu bëri di tuub di ay chrétien ci bërëbu Fuuta ci bërëbu Fuuta boobu dafa am benn euh, benn sëriñ bi tamit bi nga xam ne dafa jël ay gànnaay ni naan dañuy xeex tubaab yi parce que dañu xalaat ni feebar bi lu ko indi ci réew mi mooy dañoo bay ndogalu yàlla di top si lu ñu neex donc yàlla daf ñoo yónnee daf ñoo yónnee euh, feebar boobu pour noot ñu euh, di waa di leen ko mbugalee léegi sëriñ boobu mi ngi doon xeex Euh, mu ngi tuddoon Amadou Sékou mi ngi euh, créé benn dëkk bi ñu ci ci ci Podor mm-hmm. euh, moom mi ngi mi ngi mi ngi génn àddina ci Samba Sadio ci xeex bu ñuy wax Samba Sadio mm-hmm. léegi kooku nag day doon xeex ñëpp ñu xam ni dañoo lënkaloo ak tubaab yi te di woote ne ñii ci ci dellu ci yàlla maanaam daal feebar booba dix huit cent soixante sonaloon na Sénégal kono boo xam ni ñu bëre ñu bëre génn nañ ci àdduna ba pare euh, indi xiif xiif bu metti ba Touba bi ci boppam dañoo mujj annulé euh, l'impôt yi. kon euh, boobu xamaguñu choléra dëgg-dëgg. boobu xamaguñu choléra te boobu tamit même Touba bi xam nañu choléra sax parce que xewoon na seen dëkk di année dix huit cent trente mais amuñu paj ma paj ma amul woon bu njëkk ñu naan naag nuñ koy faje dañuy taal ay genre cuuraay ñu taal ay. Euh, euh, ñu taal ay euh, wala lu mel noonu pour dax pour dax feebar bi dañ doon xalaat ni feebar bi ngelaw bi ñu nooyi moo ko doon indi. bu jógee ci choléra boobu xëy na beneen épisode bu marquant bi mooy peste bi amoon diggante 1912 jàpp 1918 boobu itam Sénégal sonnoon na lool. waaw Sénégal sonnoon na lool ci ci peste boobu. 1912 boobu ngay eh, ngay ngay tudd c'est-à-dire peste boobu am na ñaari cas ñetti cas yu amoon ci benn famille Ziguinchor dañuy doon xalaat ni xëy na euh, peste boobu mu ngi jógee euh, Inde euh, indien yu bëre bu booba boobu dañ doon jógee Inde di ñëw Ghana di jaay jaay ay comme ni ñu tey ay ay jumtuwaay ay ay pakuti léegi nag bi loolu amee ci benn famille Ziguinchor. dañu daal di taal kër yi euh, yàlla suturaal ñu ba euh, feebar bi lawul waaye feebar bi mi ngi law dëgg dëgg Sénégal moo 1914 te lu ci intéressant ci 1914 boobu dafa tombeel ñu élire Blaise Diagne mooy lépp nit ku ñuul mm-hmm. mu mu nekk député mu gagné Touba bi mm-hmm. boobaa nag bi pest bi amee tubaab bi dañu ne léegi il faut que xaajaloo séddalee nit ñu ñuul ñi ak tubaab yi fi ñu dëkkoon Dakar Plateau ñu yóbbu leen ci euh, Médina boobu boobu la ñu créé euh, village euh, Médina bi ñu def ko ay barbelé ñu entouré ko ba pare def si diggante Médina ak Ndakaaru benn zone bi nga xam ni kenn mënu cee dëkk mooy fi fi quartier bi bi ngi tudd léegi ma xool waay diggante Medina Medina ak Dakar foofu kenn mënu fu woon daal euh, def kër mhm. kenn mënu fu woon dëkk léegi euh, Medina boobu Alaaji Malick moo ko tuddee Medina mhm. ñu ngi ko njëkkoon a bëgg a tuddee euh, Pontiville Alaaji Malick moo ko tuddee Medinatul Munawwar mhm. waaye waaye nag hmm? waaw dafa nekkoon yombul woon noonu parce que sunu mbokk lébu yi parce que bu leen fàttaliku Ndakaaru boobu ak ñu dëkk ndaar ak ñu dëkk ñu dëkk Rufisque ak Saint-Louis mm. ñooñu ay citoyen français la ñu mun a leen loo yëkkati rek teg leen ko dafa am ay charte yoon yi nga xam ni ñoom tamit euh, France reconnaître leen ko loolu parce que ñu nekk ay citoyen français bi boobu amee nag dafa am ay ay révolte euh, lébu yi lànk ñu ni ñoom daal seeni euh, seeni suuf kenn du kenn leen ko nangoo noonu duñ leen génne Ndakaaru mais il a fallu que euh, euh, euh, administration coloniale bi jël ay ndogal yu bëree tere par exemple ku ku nodd fajar tere ku ku tere ku ku ku tabax kër ak ak ban règlement règlement yooyu yëpp dañoo pousser population bi ñu nangu ndogal boobu ñu créer Médina ñu toog ci Médina mais boobu nekkul rek euh, Médina parce que même euh, Tivaouane en mille neuf cent mille neuf cent dix neuf mm. benn at wi ci topp euh, conseil privé bu Sénégal dafa jël benn ndogal naan nañu xaajalee dëkku tubaab yi ak dëkku waaye ni fi ñuul yi léegi conseil municipal bu bu bu Tivaouane dafa voté benn benn ndogal nga xam ne dañuy créer benn boulevard bu ngande bu xaajale ñaari dëkkuwaay yi te seetee ba négee nii ci suñu dëkkuwaay yi mhm. fépp fu tubaab yi dëkkoon dañ ko mën a ràññee facilement mu nekk Ndar mbaa mu nekk Ndakaaru mbaa mu nekk euh, fépp foo foo gis garab ay waaw ma ne moom moom mooy fu tubaab yi dëkkoon maanaam daal dañu arrivé ci politique sanitaire bi mhm. di indi ay euh, doxalin mi nga xam ni dañuy xaajale nit ñi en fonction de leur euh, ci seen ci i xeet pare di di taal ay kër di créer ay ay cordon ay cordon sanitaire nga xam ni comme ni ñuy wax léegi quarantaine euh, ak ak ak bërëb yu bërëb bërëb yu bëre yi nga xam ni euh, dañuy saytu euh, wér-gu-yaram nit ñi alors ci oh. épidémie peste boobu euh, ki ma dalaloon keroog euh, Ndiaga Samb di magum lébu nee na ñoom li ñu jàpp mooy euh, peste déjà amu fi woon ñoom ñoo ko créé xëy na ñoo fi indi mbir mi te seen jubluwaay nekkul woon lu dul nangu suuf yi ñu dëkk ndax tubaab yi soxla nañu boobu jege géej gi dem fu mel ni plateau ak yooyu ndax seen commerce yëpp ci géej gi la doon aw ndax loolu hypothèse bu taxaw la ci sa xam-xam ak xëy na li nga jàngat. waaw waaw mooy mooy li Euh, di seeni mbok mbokk di nit niroog ñoom ñu ñu élire ko te mooy première fois nit ku ñuul ñu nangu pouvoir bi ci tubaab yi mm-hmm. léegi lébu yi booba dañu ne euh, peste bi dañ ko bëgg a utiliser pour di di mm-hmm. mais euh, boo seetee ci histoire à chaque fois que mu am épidémie mu am situation bu mel noonu day am acteurs yu bëree dañuy am ay euh, dañuy dañuy koy jëlee comme arme pour di xeexanteeg seen biir hmm. yenn saa day nekk ay ay information yu dëggu yenn saa day nekk ay information yoo xam ni dëgguwuñu mais dañ koy utiliser maanaam politiciens yi population yi commerçant yi euh, euh, même ak docteurs yi ñoom ñëpp ku nekk dañu am seen logique nga xam ni bokkul ak bokkul ak logique yu ñeneen ñi ba pare tamit benn affaire war nañ ko war nañ ko comprendre parce que mooy euh, ñun euh, nit ku ñuul ñi euh, lébu yeeg boobu temps boobu nga xam ne sénégalais ak tubaab yi mm-hmm. bokkuñu gis-gis ak feebar lan moo koy indi am indi feebar ñun léegi bu ñu bëre boole ne ñu naan yàlla feebar bi yàlla wàccee feebar bi yàlla wàcce yàlla moo ko fi yàlla moo ko fi jëlee mhm. Kuba bi ñoom dañuy naan feebar bi microbe bi moo ko indi lii moo ko indi donc lii bu ñu xeexalee dindi lii dindi lii feebar bi dina dem léegi nag mu nekk genre position pour nga mën cee nga mën cee génn pour euh, ñu mën a xeex feebar bi il faut nga jël point de vue yu bëree nga jëm ko concilier pour nga am stratégie bi lay permettre nga nga xeex nga xeex euh, feebar boobu mhm. alors jamonoy peste bi tubaab yi ban argument la ñu joxe ba mën a yëkkati nit ñi digg ndakaaru gi ñu nekkoon yóbbu leen fu mel ni Pontiville di tey médina ñu créé ko. waaw argument yi moom xam nga day yomb bu fekkee dañuy euh, da ngay yeewu euh, ngay yeewu nit ñi di dee euh, par centaine nga xam ne loolu mosu fa xew. Hmm. ba pare ñoom argument bu gën bu gën a li ma la wax ni li ma wax sànq mooy euh, ay réglementation yu bëre réglementation yi mooy doo fi tabax euh, néegu ñax boo ko waxee ki nga xam ne yorul moom li mu li mu li mu tabaxee euh, néegu béton armé day dem fi nga xam ne mën nañ fa tabax néegu ñax mu tabax tabaxee ko foofu hmm. ba pare am na ay amende ba pare coomit def nañ ay carte spéciale nga xam ni boo ko amulee munoo euh, munoo circuler yooyu yëpp mooy stratégie nga xam ne tubaab bi teg na ko ba pousse euh, progressivement population bi ñu génn ñu génn Ndakaaru dem Médina mais euh, population bi yëpp génnuñu génnuñu génnuñu génnuñu génnuñu Ndakaaru parce que léegi bu ñoo moomoon seen suuf mm-hmm. te ñoom tamit ay ay citoyen français lañ mm-hmm. ba fa mujj mu am ay ñaar ñetti ñeent juróom nekk ci benn néeg ci biir ci ci biir Ndakaaru waaye yooyu yëpp dañoo indi ay dédommagement à chaque fois bu ñu bu ñu bu ñu taalee sa dañuy dañuy indil dédommagement mais ce n'est pas toujours le cas. Hmm. yegoon nañu aussi ci confinement radical ñoom tubaab yi. ak confinement bi bi ngi doon am euh, euh, ñaari ba ñett façon mooy euh, déjà cordon sanitaire yi. Hmm. maanaam dañuy teg ay ay soldats ñu ni fii kenn du fi jaar kenn du fi jéggi maanaam kenn du dem kenn kenn du dem Ndakaaru par exemple. Hmm. mooy comme li ñu def rek ak coronavirus voilà ou bien ñu ni ñëpp ñu jógee Gambie mbaa ñu jege Sierra Leone euh, parce que boobu amoon na benn quarantaine bi ñu doon imposé ñëpp ñu doon jógee euh, Sierra Leone de du mois de juin ba jusqu'au mois de de septembre nga xam ni bépp bateau bu jegee foofu mm-hmm. du du dugg du dugg ci du dugg ci pooru Sénégal yi d'accord yan gox fii ci Ndakaaru lañ euh, defoon confinement wala ñu beroon leen quarantaine alors ça ça dépend ça, ça dépend ci feebar yi parce que euh, boo jëlee feebar bu mel ni euh, euh, bu mel ni peste par exemple euh, euh wokam wakaam Mont-Roland bërëb yooyu yëpp dafa bëre woon dafa bëre woon dafa bëre woon feebar bi dañu doon créer ak li ñu doon wax lazaret lazaret mooy képp ku feebar dañ lay jàpp yóbbu la foofu hmm. ba nga xam ni dañuy soupçonné ni yow seen waa kër am na Euh, am na am na ku fa génn àddina mbaa ku fa feebar ci feebar bi dañu jël kër googu yëpp yóbbu leen ci lazaret bi eh, eh, bay leen foofu. lazaret lan la woon fu ñu daan confiner nit ñi. voilà lazaret mooy li ñu daan confiner nit ñi mooy genre euh, hôpital simplifié mais bon euh, nga xam ne foofu dañuy nekk di leen surveiller généralement. ay ay ay militaire ay tirailleurs ñoo doon garder kii yooyu nga xam ni kenn kenn du ci kenn taawu ci génn. Hmm. beneen beneen ab beneen euh, euh, affaire ci ci ci feebar yi mooy euh, chambre de commerce yi mooy mu doon wax ni eh, dañu doon def ay pétition mm-hmm. yenn saa yi train bi doon saxaar bi doon dem bi doon dem ndar dañ koy arrêté ñu tëj école yi yooyu yëpp day doon indi ay jafe-jafe ay yu métti ba population dañu doon def ay pétition ñii di di di di di ndogal ndogal yu ndogal yooyu alors euh, loolu di jafe-jafe yi roon am diggante tubaab yi nga xam ne ñoo fi nekkoon di doxal ak askan wi euh, kilifa diine yi ñoom ban taxawaay lañu ci amoon. waaw mooy euh, kilifa diine yi mooy comme ma la waxoon ci njëlbeen mooy kilifa maanaam feebar bu mel ni peste mbaa bu mel ni fièvre mbaa mu mel ni tey corona. Hmm. nekkul rek affaire u docteur yi. affaire yu ñëpp la woon boobu ah, par exemple ci épidémie peste boobu sëriñ su mag yi fi nekkoon yëpp. dañ si sumb woon seen loxo di conseiller administration coloniale di eh, di joxe ndogal di bind ay lettre lettre yooyu ñu koy dafay affiche ci arab mbaa mbaa ci olofal euh, ñu euh, pour ñu communiquer population yi jàppale leen na ñu topp ndigal yi te loolu ndigal boobu yàllaa ko santaane te dañoon dinañ ko tegoon ci lu wér te sëriñ si bu ñu waxee population dina leen dégal hmm. donc sëriñ euh, sëriñ yi euh, jàppale nañu woon euh, gouvernement bi ndax xeex génne jàngoro ci réew ma maanaam ils ont dañu nekkoon ay acteurs yu important ci xeex jàngoro bu mel ni peste bi bi xewoon fii ci sunu réew. jamonoy peste boobu Mame El Hadji par exemple pour vaccin yi ñu ne amoon na ci taxawaay bu am solo. waaw amoon nañu amoon nañu taxawaay bu am solo nekkul woon rek euh, maam El Hadj Malick euh, yeneen sëriñ yëpp ñoom euh, maam Limaamu avant peste ba ñu nekkoon maam Seydou Nourou Taal ñoom ñëpp taxawoon nañ si xelal xelal population yi xelal gouverneur administration coloniale. cour parce que nit ñi daaw du ñu woon nangu amoon ay ay révolte ñi ñi di lànk nit ñi di bañ a vacciné wu nit ñi di bañ euh, di bañ a topp euh, yi nga xam ni gouvernement bi euh, digaloon na ko parce que boo seetee ci épidémie de peste bi ndar am na sax ñi nga xam ne ay nit ñi nga xam ne dañoo dee ci peste nga xam ne dañ leen a taal xam nga yooyu léegi islam nanguwul ku taal taal ku ou bien ñu ni ku dee ku dee peste dañ lay war a suul euh, yenn façon suul yi nii dañ lay def lasso dañ lay euh, gas bu mu mat ay deux mètres ñu suul la te yooyu yëpp ay euh, sociologiquement dafa nekk di ay solution yi nga xam ni population mënuñu ko mënuñu ko nangu mm. waaye sëriñ si ñoom conseil bi ñu doon jox population bi mooy ñu topp ndigal li administration bi def nga xam ni ndigal yooyu c'est pour seen pour seen wér-gu-yaram la pour seen euh, euh, seen euh, pour ñu mujj ci feebar bi nañu top loolu nañu vacciné wu voilà. Hmm. kon lii xew tey maanaam ñenn ci askan wi ñàkk gëm ne feebar bi am na buñ jëlee exemple coronavirus bi ñuy dund tey lu ni mel amoon na démb kon dugguleet ci Sénégal wala ci Afrique de manière générale. déedéet dugguleet mooy maanaam nit nit dong la nit nit mu nekk nit ku ñuul mu nekk tubaab mu nekk arab. Hmm. saa yu euh, feebar bu mel nii bu amee euh, day indi euh, ay xalaat yu bëree ay xalaatu complot ay xalaatu yàlla def ñuy mbugal ay xalaatu feebar bi amul loolu ci histoire dafa nekk situation yi nga xam ni toujours day am et puis en plus de sa comme ay réew comme su ñun dañuy dañuy dañu am interprétation ñi dee li tax ñuy dee yenn saa yi dañuy jàpp ay nit yi nga xam dañuy néew doole ñu ni ñi ay dëmm lañu ñoom ñoo rey nit euh, ñi ñooy lekk nit ñi ñi ñu loolu yëpp dafa nekk euh, situation bi compliqué loo euh, gestion épidémie bi moo moo waral nag ñëpp borom kaddu yi muy sëriñ mooy médecin ya muy jàngalekat ya muy population bi d'une manière générale dañu war a pour euh, stratégie bi mun a euh, joxe résultat yu résultat yu baax ngi foofu jàngoro mhm. docteur Pam bala ñuy génn ci jamonoy pest bi euh, gis nañu ne poor bu ndakaaru euh, daanaka lu bari ci feebar bi nee nañu foofu la jaar comme tey ni ñu ko waxee ci aéroport euh, bu jaas bi nga xam ni cas importé ñu am yépp presque foofu la aw boobu itam mën nañoo jàpp ne port bi daanaka moo yor koom-koom bi ban njeexital la amoon justement ci koom-koomu réew mi ak yan mesure la ñu jëloon par rapport ak port bi voilà port Dakar comme euh, aéroport tey euh, moo nekkoon euh, buntu buntu buntu réew mi lépp portu Dakar bi la doon duggee et puis boo seetee mu tàmbali Maroc ba ba Gabon port Dakar googu moo nekkoon port bu gën a rëy ci ci Afrique donc feebar yu bëree comme ni nga ko comme ni nga ko waxee ci port bi bi la doon dikkee dafa amoon benn service spécial bi ñuy doxoon nga xam ni bateau bu ñëw ñoom ñooy dugg ñu saytu ñu seet ñu nekk ci bateau bi ndax wér nañu ndax amul benn feebar ci biir ci biir bateau ba amul benn euh, feebar ñu jox leen euh, ñu mën a débarquer bu fekkee rek benn feebar am ci ci ci bateau ba dañ leen di def quarantaine maanaam du ñu àgg ci biir dëkk bi dañu biir euh, géej gi ñu def fanweeri fanweeri laataa ñuy soog mën a dugg ci biir dëkk ba hmm. euh, ci euh, ci ci noonu i nga xam ni euh, mu nekk poru Dakar mu nekk aéroport Dakar tey feebar addina yëpp nu ñuy ni nit ñi di di déplacé wu noonu feebar yi di déplacé wu feebar yu bëree par exemple boo jàppee comme feebaru tudd fièvre jaune mi ngi mi ngi ñu jógee Amérique hmm. mi ngi joge jógee Europe ñëw si ñun choléra mi ngi jógee Asie euh, Inde lay jóge ba ñëw te par exemple choléra mi ngi jógee Inde bi ñuy inventé bateau yi ak pèlerinage à la Mecque ñi doon aji Makka euh, ak euh, comment dire demante bi ak bi moo waral feebar yi di law di di tasaaroo ci ci àddina bi te léegi ak mondialisation bi mën nga yeewu mak fanaane ndakaaru maa nga fanaane ndakaaru nga yeewu nga yeewu nga yeewu New York moo tax it léegi feebar bi amul benn feebar bi nga xam ni mën nañ ko dëkkaloo e, dëkkaloo fenn mhm. e, loolu moo am ci feebaru coronavirus bi bi mu amee Chine xëy na nit ñi dañuy yaakaaroon ni foofu dong lay yem mhm. ba mu rëcc foofu ba léegi tas na wër àddina gi yëpp d' accord bi ñu jógee ci euh, peste bi euh, professeur bala ñuy ñëw ci jàngat yi euh, atum 1927 jàpp 44 aussi variole ñëw na période boobu lan la ñu ci mën a jàpp ak ni yëf demee woon. waaw pour variole variole métti woon na trop moom itam waaye variole ñoom amaloon nañ ko vaccin parce que variole mooy feebar bi nga xam ni bu la boobu la njëkk am vaccin. Eh, ba pare tubaab yi dañu amoon ay plan quinquennaux maanaam dañu doon ay programme pour vacciner nit ñi euh, boole ko vaccin contre fièvre jaune bi ma nee ne boobu Dakar lañ ko lañ ko inventé hmm. ba ñu euh, arrivé euh, situation ñu xeex variol mu mu disparaître waaye ma variol moom nekkoon tamit benn feebar feebar bu metti buy faat ay bakkan ay faat ay bakkan yu bëree bëree bëree hmm. Ah, waa cent vingt 1927 boobu tamit dafa dafa important ci ci xeexu jàngoro ak découverte bi ma la wax nii mooy euh, euh, vaccin fièvre jaune parce mm. que 1927 la ñu jël ci deretu euh, benn malade bu nekkoon bu nekkoon Sénégal deret boobu ñu jël ci doomu jàngoro ju ñu envoyé ko laboratoire yu nekk Angleterre laboratoire yu nekk France yu ak laboratoire institut Pasteur. Hmm. ñu liggéey ci loolu bu ñu génnee vaccin euh, vaccin euh, français bi nga xam ni boobu Dakar la Dakar la génnee hmm. looloo waral euh, ñu mën a defar de lutte contre fièvre jaune feebar boobu daanaka léegi amatul même bu amee comme ni mu ci at yu jamono yu njëkk ya mhm. boobu feebar itam moo indi xëy na ñu mun a taxawal tey institut Pasteur ndax euh, ba ñu defoon ca Saint-Louis moo jur bi ci Ndakaaru waaw waaw waaw cest à que eh, institut Pasteur bi bi nekk bi nekk Ndakaaru déjà tubaab bi en 1898 déjà dafa am benn laboratoire bu ñuy créé woon Ndar hôpital Ndar boobu mu ngi tàmbali woon mhm. di def vaccin di ay vaccin contre variole boobu ak di def ay gëstu ci euh, ci euh, paludisme paludisme euh, ci recherche yooyu lañ lañ bo dox léegi nag boobu nañu transféré 1913 lañ ko yóbbu Ndakaaru moom mooy euh, jur euh, institut institut Pasteur euh, bu Ndakaaru boobu nga xam ni def na ay jaloore yu yu rëy ci ci xeex fièvre jaune ci ci Sénégal comme ni ma waxee variole bi fekkoon nañu am expérience yenn épidémie ñaata nit la ñu jàpp ne ñoo ci ñàkk seen bakkan nee nga gaaw nañu maîtriser épidémie bi doonte def na fi ay njombe. waaw nit ñi ñàkk seen bakkan parce que. tey boo demee archive nationale bu Sénégal danga nga am ay yu bëre c'est-à-dire chaque année ñi si dee euh, ñu génn àddina ci ci variole ba dañ ko doon euh, comptabiliser mm-hmm. maanaam mënuñu ko xayma naan la tey benn chiffre temps mais dafa nekkoon euh, dafa nekkoon épidémie bu saisonnière bu doon dem du dikk mm-hmm. bi bi génn na faat na ay bakkan ay bakkan yu rëy yu bëre yu bëre bëre waaye mi lu gën a sogal tubaab yi mooy ñoom feebar yi nga xam ni seen bakkan ak économie ni mu doon kii économie économie coloniale bi mm-hmm. euh, mooy comme genre euh, fièvre jaune ak peste loolu moo leen gënoon a yitteel waaye tamit terewul ñu ngi doon def euh, bi yeneen programme de lutte contre variole contre euh, maladie du sommeil ak yeneen feebar euh, comme genre tuberculose. épisode grippe espagnole bi naka la ko Sénégal dundee. grippe espagnole bi dafa nekk euh, comme tey ni ñu amee tey coronavirus am na juróom fukki million nit. dee nañ ci ci àddina bi ñu ngi xayma à peu près deux millions nit dee nañ ko génn nañ ci àddina ndax grippe boobu ci ci Afrique. Hmm. Euh, dafa ci ci soldaar yi suñu tirailleurs yi ñi doon jóge woon Maroc mm. di ñëw la feebar bi euh, duggee euh, duggee Sénégal te nga xamal tamit aussi grippe bi mi ngi jógee États-Unis d'accord jóge jóge en mille neuf dix-huit grippe bi mi ngi jógee États-Unis parce que était en en pleine guerre donc soldaar yi ñuy dem di dikk te ñoo waral feebar bi tamit dugg di law lu waral ñu tuddee ko grippe espagnole waaw xam nga première guerre mondiale ñu nii ñu ngi ko tuddee grippe espagnole euh, Espagne moo nekk euh, pays nekkul woon nekkul woon ci guerre bi ñoom ñoo doon def ay statistiques di euh, informer population yi ci grippe bi ñu am comme tey nu ñuy def ñu ni tey ñaat nit feebar nañu ñii faatu nañu ñii wér nañu Espagne ñoo la doon defee ba nit ñi tuddee ko grippe espagnole hmm. mais feebar boo gis par exemple dafay am euh, nuñ ko doon tuddee hmm. par exemple euh, syphilis euh, tubaab français ñu ngi koy naan mal de Naples hmm. italien ñu ngi ko tuddee mal français ku nekk daal da ngay jël feebar bi nga am tur boo ko tur woo ko woo ko tuddee waaye boo seetee covid dix neuf bi léegi OMS dañoo dañoo dañoo dàq loolu léegi feebar kenn du ko tuddee ab réew maa nga ko ak euh, ak xeet hmm. parce que lol day indi li ñuy wax euh, stigmatisation stigmatisation mooy ñu jël feebar bi ñu ñu ñu accuser ay nit hmm. u bien benn xeet ñu ni ñoom ñooy lawal feebar bi te loolu ci histoire lu lu yàgg la xam ni yenn fois dañ doon accuser juif yi Sénégal ñu ngi doon accuser euh, Touba yaa ngi doon accuser nit ku ñuul yi bu mu dem bu mu yàgg tuuti ñuy accuser naar libanais yi mm. eh, yu nekkoon dëkk ba a chaque fois bu amee feebar day am kuñ ko kuñ ko jiiñ comme ni Trump defoon di wax euh, virus chinois ci ndoxteelu coronavirus bi voilà exactement mooy mooy loolu c'est-à-dire Trump ñoom bu njëkk sax feebar bi mu bu mu commencé nekkuloon sax Trump même occidentaux yi dañu daan wax feebar bi am Chine ñu ngi ko doon profité ci ci feebar boobu pour def guerre commerciale contre Chine mm. na et puis ñu ngi doon xalaat sax xëy na feebar bi dina law euh, ba ñëw Afrique parce que léegi africains yi ñu ngi jëflanteeg euh, chinois bu baax a baax et bi bi mu demee ba feebar bi commencé dugg seen réew ñu commencé di changer discours ñu naan feebar bi daal genre grippe bu bu simple la waaye léegi xam nga kenn waxatu ko. léegi dañ ko jëlee de manière très sérieuse parce que feebar bi. Euh, Euh, depuis grippe espagnole ba néegam mooy feebar bi nga xam ni moo gën a dangereux ci monde bi parce que léegi ñëpp la ñëpp la concerné hmm. nekkutul rek feebar yi nga xam ni dafa dafa localisé wu benn benn bërëb comme Ebola ou bien euh, voilà feebar yi nga xam ni comme paludisme léegi nag ñëpp ñoo ci yem borom alal yeeg ñu ñàkk ñeeg pays euh, Touba euh, réew tugal yeeg ak Afrique ñun ñoo yëpp ñoo ñoo si même ligne départ lañ lañu nekk instant bi alors docteur euh, Pam ñu dellu ginnaaw tuuti ci épidémie yi fi jot am ndax boobu Sénégal am na ay kàngam ci wàllu wér-gu-yaram yoo xam ni amoon nañu taxawaay ci mbir mi. waa kàngam yooyu mu mooy ma wax rek mooy amoon nañu en 1918 déjà ñu ngi créé première école de médecine. mooy eh, ren mooy eh, téeméer na daaw eh, plutôt faculté de médecine bu bu Ndakaaru am na téeméeri at amoon nañu ay structure amoon nañu des médecins yu jógee yu jógee Russie yu jógee France ak ñun tamit ñun suñu bopp ñu ngi formé non médecins ñu naan médecin africain boo seetloo les premiers cadres africains ñoom ñëpp am Houphouët-Boigny ñoom Bernard Dadié ñoom ñëpp c'était la plupart d'entre eux c'était des médecins africains te comme ni ma la waxee mooy dañu amoon benn programme euh, régulier nga xam ni euh, benn programme nga xam ni ñoom épidémie dong lañ doon euh, lañ doon lañ doon toppatoo mooy service des grandes endémies hmm. ñu ñoon am seen i plan di vacciner di topp population yi dafay analyse di wala di saytu ba xeex jàngoro jangoro jàngoro yu bëree yooyu nag bu ñu demee ba ñu moom sunu moom sunu bopp lépp li nga xam ni woon ay euh, structure fédéral nga xam ni ñu leen ko wax jàngoro ci Afrique occidentale française réew bu nekk da nga am sa benn service bu ndaw toppatoo li xew sa réew et après léegi ñi ñi ngi xam ni xam nañu nii léegi loolu nekkul euh, virus amul frontière mm-hmm. donc feebar amul frontière dafa war a ñun ñëpp ñu lënkaloo ñu am euh, stratégie benn politique mi nga xam ni day saytu wér-gu-yaram population yëpp Euh, en dehors des des frontières nationales. Euh, tey Sénégal euh, lu ñu mën a wax ci Afrique de l'Ouest am na ci taxawaay bu am solo surtout ci wàllu wér-gu-yaram donte doole bi ci wàllu koom-koom taxu ko demee noonu ndax loolu ci histoire am na lu koy expliquer. waaw mooy li koy expliquer mooy Sénégal xam nga ñoo njëkk Sénégal moo njëkk am structure buy former ay ay médecins. on a am nañu ay. ay spécialistes yu ngande ñi nga xam ni ñu ñu ñu ngi Sénégal euh, euh, boo seetee par exemple euh, ci xeexum sida dans les années quatre-vingt contribution Sénégal ak chercheurs sénégalais yi tey boo xoolee même ci am na benn base de données buy yu experts internationaux ci chloroquine bi ñuy waxe ni hmm. am na am na ñaari sénégalais ci biir ci am na ñaari sénégalais yi ci biir donc Sénégal daal teel tel teel nañu am euh, structure de formation et puis comme Sénégal aussi Dakar moo nekkoon euh, capitale de de ah, de l'AOF mm. Touba bi def nañ lépp ba créer ay structure pour protéger santé popula euh, population yi ak santé économie colonie bi mm. donc moo waral Euh, yooyu mooy expliquer euh, peut-être avance bi nga xam ni Sénégal euh, am na ko par rapport yeneen réew yi. docteur Pam yaa ngi bind livre bu tudd colonisation et santé au Sénégal ñu njortu ne xëy na jàngat nga ci def ndax jotuma ko lire waaye ba nga defee jàngat ci colonisation wala wér-gu-yaram ci Sénégal lan nga gis ci cëppaandaw li. waaw moom mooy euh, ci téere boobu ma bind maanaam mooy euh, sama thèse u doctorat bi ma def euh, université Ndakaaru te professeur Ousseynou Faye moo ma moo ma encadré te maa ngi ko liggéeyee tamit ci téeméeri at maa ngi observé Sénégal nu ñuy xeexee jàngoro yi seen résultats yu ñu am ak jàngoro yooyu surtout fièvre jaune ban impact la am ci économie bi ban aussi jàngat lañu la ñu def ci ci recherche euh, ci ci ci feebar bi euh, maanaam daal boo euh, saytoo aujourd'hui boo saytoo ni Sénégal xeexee feebar boobu def coïncider wu Pasteur moom ci boppam mi créé méthode vaccination contre la rage hmm. euh, bokk na ci bokk na ci bokk na ci bokk na ci xeex boobu hmm. maanaam daal euh, jàngat bi réy bi ñuy jàngat ci ci xeexum euh, fièvre jaune ci Sénégal maanaam mooy feebar boobu defa concerné acteurs yu bëree te ci ci recherche médicale bi progrès yi ñu si def yi def ci Sénégal erreur yi ñu def Euh, ak impact feebar boobu euh, yooyu yëpp ci euh, téeméeri at la la la jàng ci la génnee évolution bi maanaam naka Sénégal nañu xeexee jàngoro boobu ba am vaccin bi def test vaccin yi ba ñu xeex feebar bi ba feebar bi génn génn réew ma. benn feebar bu ñëw ñëwaat mooy choléra quatre vingt jàpp deux mille cinq amaat nañu fi daanaka ay épidémie ni ñu gérer yooyu épidémie ndax gis nga ci ne xëy na amoon nañu ko wala tenir nañu compte ci li ñu jotoon euh, dund atum 1868 bi choléra ñëwee ba sonal bët gànnaaru réew mi. waa euh, mooy 1970 euh, xam nga tamit euh, ñoom dañ ko fagaru woon bi 1868 bi choléra di am boobu vaccin choléra amut woon 1970 hmm. bi choléra di di ñëw boobu choléra bi wër na Sénégal yëpp hmm. ne amoon Mauritanie waaye dafa wër dafa réew mi amul woon ci réew ma boobu administration boobu san santé boobu dañuy def programme de vaccination hmm. am na ci benn bërëb du euh, ñu ci ci Fuuta jéem a vacciner euh, benn euh, benn kër benn je dirais pas kër diine mais benn benn dëkk mi nga xam ne benn sëriñ moo fa nekkoon ak ay taalibeem mm. sëriñ soosu dañu dañoo lankoon naan dañu mm. léegi ñu dem benn dëj xam nga rek ñu sunu suñu dundin mooy euh, lu dal sa mbokk la yow la daal. am bisuñu bisu euh, ñu dem ci benn dëj. Mhm. côté Mauritanie ku ku fa ku fa génnoon àdduna. Euh, di jaale bi ñu dikkaatee ñoom ñoo indiwaale feebar bi dugal ko ci Sénégal boobu nag la feebar bi commencé di tasaaroo ci tasaaroo ci réew mi te boobu ñu bëree dee nañu ñu bëree dee nañu ci ci ci feebar boobu. parce que non seulement ñenn ñi feebar bi moo leen mais ñenn ñu si tamit dañuy ne comme dañuy euh, utiliser euh, ndox mu sell utiliser eau de javel pour euh, sellal ndox mi nuñ mm-hmm. ko doon utiliser tamit nit ñi comprendre wuñu woon amuñu woon moyen de communication ñu am tey mm-hmm. ñu bëree nit ñi utiliser moo moo leen lor ci ci ci feebar boobu maanaam daal ci ci gàttal structures yi amoon euh, dans les années euh, soixante ba dans les années soixante dix euh, di xeex jàngoor yi service boobu service des grandes des grandes endémies liggéeyoon bu baax ñu jëlaat initiative yi nga xam ne daawoon nañ ko def pour xeex pour xeex jàngoro jooju alhamdulilah depuis boobu tamit choléra bi. donte am na fu mu am ci ci àddina bi euh, boobu la gëj boobu la gëj Sénégal. Sénégal docteur Pam gannaaw démb ñu ñëw ci tey boo defee ab taxaw seetlu ci coronavirus bi ak ni mu gaawee wër ndomba àdduna ban jàngat nga ciy def. jàngat yooyu daal mooy li ma li ma li ma waxoon sànq léegi euh, lépp lu xew euh, ci benn pàcc ci àddina bi concerné na ñëpp. mooy lu ñuy wax mondialisation mm. euh, surtout feebar nga xam ne day wàlle surtout feebar nga xam ni euh, euh, dafay jàpp dafa dafay jàpp comment on appelle ça système respiratoire mm. mooy li ñuy noyee di nuyoo ci kon ñu nit ñu bëree ñu nekk ci benn bërëb di feebar buy wàllaate mm. day gaaw a law tax muy gaaw law mooy Euh, moyen de communication yi euh, dañoo dañoo développé wu euh, da ngay fanaan fii tey fanaan fee suba léegi jàngat bi ñu ciy def mooy léegi amul benn problème mi nga xam ni de santé mi nga xam ni problème mu ñeneen ñi la problème mu santé problème global la problème mu santé wu ñëpp la tey pays riches yi nga xam am nañu doole ak pays yu néew doole yi ñëpp ñoo war a manko ñu lënkaloo ñu xeex ñu xeex jàngoro gi et puis bu ñu yàlla euh, defalee jàmm ba ba feebar bi jege fii euh, addina bi euh, day changé day changé lu tax parce que léegi wóor na leen ni xeex jàngoro nekkul rek benn intérêt wu pays yu pauvre yi mais intérêt wu ñëpp la alors bu ñu xoolee ci histoire docteur Pam ndax euh, feebar bu méttee nii wala bu gaawee nii wala bu baree nii loraange ci àdduna bi yëpp mës naa am. ah mas na mas naa am mas naa am euh, mooy peste euh, boo jëlee peste ak épidémie grippe mille neuf cent dix huit mille neuf cent vingt ñaar yi boo leen boole li ñu rey ci àddina bi ëpp na téeméeri million comme coronavirus bi mais ñu ngi ñaan yàlla nag coronavirus bi mu em fii mu yem fii euh, même bu même bu yemulee fii euh, mu bañ a àgg proportion proportion yooyu mhm. euh, parce que bon coronavirus bi gaaw na gaawaay boo xam ni jaaxal na ñëpp mhm. waaye comme li ma la waxee peste bi cinquante millions de morts la mille neuf cent dix huit ba mille neuf cent vingt si si si si si ñaari at. ni la lawee woon ci àdduna aussi. waa non bu njëkk bi dañ doon am ay bateau la ñu amoon on n'avait pas on n'avait pas les euh, aviation mi ngi commencé mille neuf cent vingt et puis c'était pendant pendant les pendant tests de début de l'aviation mi ngi commencé euh, donc nekkul woon euh, développé woon comme ni mu développé nii hmm. waaye mi ngi jógee Amérique ñëw Europe ñëw Afrique ñëw dem Asie donc doonte gaawewul comme kii nu mu gaaw corona nu mu gaawee tey mais wër na wër na àddina bi yëpp euh, wër na àddina bi yëpp te euh, ga lor na ñu nañu bëree. d'accord alors jamono ji yaa ngi Paris de Paris naka nga gisee Sénégal euh, ni mu gérer yëf yi bala ñuy ñëw foofu ci nu ngeen ko dunde alors maa ngi comme maa ngi comme comme li ma wax ñu ni picc maa ngi ci kaw waaye xelam maa ngi ci suuf. Mm. sama xel ak sama xalaat yëpp tey mi ngi mi ngi Sénégal. donte man maa ngi fii France nga xam ni dañoo toju génnuñu euh, maak sama waa kër kenn du génn euh, dëkk bi dafa mel ni ñëpp dañoo toxu doo dégg fenn doo gis kenn di di dox ci biti euh, maa ngi tamit encouragé population sénégalaise bi di encouragé autorité yi ci nu ñu jëlee mesure rapidement pour jéem a xeex jéem a xeex feebar bi Euh, di di leen ñaax tamit ñu continuer nit ñi bañ a nit ñi bañ a bañ a taay nga xam ni xeex bi ñuy xeex euh, tey pour euh, protéger population yi pour proté pour protéger ñëpp la kenn dong bu bu bu bu protéger wul boppam day day day day day menacer santé wu ñeneen ñi te li li ñu ñaan yàlla mooy ñun ñëpp ñu mucc. Euh, sunu mbokk mucc ñun ñëpp ñu mucc ci ci feebar bi euh, di daanelee aussi sama euh, félicitation nga encouragement ci corps de santé bi population yi kilifa diini yi ñëpp daal ñi ngi ñi ngi ñu ngi góorgóorlu di jéem a xeex xeex jàngoro gi parce que tamit tey li xew fii Europe Italie Espagne France Euh, li nga xam ni jar naa tiit mm. jar naa tiit parce que ñoom euh, dañu ne woon ñoom am nañu doole waaye eh, virus bi moo leen ëpp doole ci instant bii nii mm. euh, ñun amuñu doole yu ñuy néew doole suñu hôpitaux yi demewul noonu léegi nag nga xam ni li nga xam ni lu ñu am daal mooy suñu jom ak suñu yéene ak suñu pas-pas te yaakaar naa ni bu ñu lonkeloo et puis ñu xam tamit que les choses la peuvent durer mm. mën naa mën naa durer te dafa nekkutuñu si jamono ñi nga xam ni euh, ci piliyaan toog di naan sa ataaya dañu nekk ci jamonoy xeex xeex boobu nag euh, nañu jàppale autorités yi ñu jàppale fajkat yi ku nekk nga topp ndigal nga topp ñi nga xam ni ndigal bi borom xam-xam yi di joxe eh, ñu topp ko ndax eh, yàlla euh, mucculoo ñu ci ci feebar boobu. Antonio Guterres secretaire général ONU woon réew yi g yi maanaam réew yi am doole ñu wàllu Afrique ndax nee na fii euh, mën nañu fi encore sauver ay nit ndax euh, Europe moom bu ñu xoolee li fa xew daanaka mën nañu ne béy wéy na mbuus euh, virus bi gañe na leen ba pare yaakaar nga ñoom ñu bàyyi seen bopp ñoo wàllu Afrique ci li nga jot a gis ci histoire. waaw xam nga instant bi nii bu ñu feebar bi dafa nekk di feebar buy wallaate ñoom bu ñu fajee seen bopp sax ñoom daanaka boom ñëpp ñëpp ñu wér te feebar bi des Afrique day ñëwaat si ñoom ni feebar bi jógee eh, Chine ñëw ci ñoom feebar bi nekkul feebar ñee mbaa waa koñ bële mbaa waa réew male mbaa waa dëkk bële hmm. feebaru ñëpp la tant que amaguñu vaccin euh, mi nga xam ni dina bu bu vacciner population di leen protéger contre contre feebar bi il faut que ñëpp mu nekk mu nekk problème mu ñëpp dafa naa euh, Guterres lo la comprendre dafa xam ni àddina bi tey ñun ñëpp euh, ñun ñëpp kii nañu euh, dañu concerné wu maintenant Afrique feebar bi ñëw na fa mais ñaanuñu ko yàlla àgguñu situation bi ñii fi ñu toll hmm. te mën nañu tamit jël matuwaay ba nga xam ni duñ fa duñ fa àgg parce que xam nañu feebar bi lan moo koy nan moo koy indi ak nan lañu koy wàllante ak moytu bi nga xam ne boo ko moytee moytoo doo doo ko euh, def naa daal euh, je pense que aussi mooy euh, solidarité bi war ci diggante ñi am ak ñi amut mm-hmm. ki feebar ak ki feebarut Guterres def naa yooyu lañu appel boobu la def et puis tamit ya am na ay appel yeneen appel yi tamit yi nga xam ni Euh, comme ay banque mondial euh, fonds monétaire international mooy bor yi nga xam ni pays africain am nañ ko mm. soit ñu ñu baal leen ko pour ñu mën a investir seen xaalis ci ci wér gu yaram mm-hmm. euh, ak développer les structures les structures sanitaires ak surtout ci économie bi narmeelu déjà ah ouais mais mais économie bi mooy dañuy naan ci yi feebar ak ak ñàkk sorewuñu ay ay doomu ay lañu mm. Euh, économie bi bu nit ñi wérulee économie ay nit la mm-hmm. euh, nit yi ñooy tax économie di dox mm-hmm. bu nit ñi feebaree économie dootul doxati mm-hmm. te instant bi nii nekkul feebar rek parce que feebar buy buy faat la buy faat la te ñi muy faat euh, bon Europe fii ñu ngi naan màggat yi lay faat mais de plus en plus ñu ngi gis ay ay ndaw di mu leen mu leen di lor hmm. moo tax it tamit euh, il ne faut pas que ñun ñi yaakaar ni parce que ñun ay ndaw lañu hmm. euh, feebar bi du ñu dal feebar wi ñëpp lay dal te même ndaw moomu boo moytu boo bu moytuwulee sax bo ko boo demee ci biti nga indiwaat ko ci kër ga di nga loraat ñeneen donc daal ñëpp la concerné am na solo jërëjëf euh, docteur Adama Ali Pam amoon naa mbégte lool dalal la ci démbak tey. merci beaucoup man euh, ma gën a am mbégte et puis euh, di terminer rek di ñaanal réew ma ñaanal mbokk yeeg ñaanal ñëpp. jàmb ñëwaat ci Sénégal ci lu gën a gaaw ba ñu delluwaat ci sunu yitte. olof bi baax na sama jaam bi góorgóorlu na bu baax a <laughs> ngeen jéggal ma ci olof gi. non baax na baax na tiitoon nga ci waaye ah. mujjee ngaa góorgóorlu ma fàttali juste que ni yow archiviste paléographe nga yaa ngi génnee école des chartes nekk itam archiviste en chef bu UNESCO docteur en histoire bind lu bari ci euh, Afrique surtout ak euh, feebar yi nga xam ne jot na fee am jamono bi ñu tubaab yi noote. waaw ok c'est ça exactement Adama Ali Pam ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. merci beaucoup mu nekkoon euh, suñu gan ci démb ak tey kon docteur Adama Ali Pam euh, mu doonoon nag luy mottali waxtaan wi ñu amoon euh, keroog door ko ak Ndiaga Samb di magum lébu mu ñëwaatoon ci ni ñu dundee feebar yi fi jotoon am surtout peste bi sonaloon lool Sénégal docteur Adama Ali Pam ñu doon waxtaan ak moom kon depuis Paris gi nga xam ni fa la nekk ñu koy ñaanal jàmm moom itam di ko ñaanal képp koo xam ni doomu Sénégal nga nekk foofu ak. képp kuy nit ndax tey euh, coronavirus daanaka euh, humanité la sonal humanité la tëral waaye euh, yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu mën ko ànd daan mbokk yi li nekkoon seen émission démb tey ñu amoon mbégte lool ànd ceeg yéen gërëm jaawo Diallo mi fare woon ci wàllu machine bi Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm